askan wi ba jàmm ngeen yandoo ñun de moom la ñu fanaane lu def nag lu ay di jàmbat a ah, bisimilah yi jàmm la solo yéene kaay lañ koy xëy daal di doore mu yóbbu nu nag ma ne ko ca jam ñaajo Dakar arena ba nga xamante ni moom moo ko daal di diggee woon def na ko jiitu réew mi son excellence moo kii ni ki démb nag la amal kubite ga l'observateur yéene kaay di ñu xamal ni ñu daal ma ne ko jaloore yaay boroom ndaxte nag ma ne ko loo ca mënti dégg nag fi mu toll nii ah loolee de ab complexe multisport la bu nga xamante ni de tàggatu ko nag ma ne ko dana bari lool ay discipline yu nga xamante ni ña nga ca l'évidence yéene kaay dañu ci ayuk Matar Ba ministre bi ñu dénk wàllu sport la amee Vox Pop nu ñu Macky Sall ni mu ko wóoree ni nii la daal di li nga xamante ni nag moom moo di arrêt Dakar Arena bi noonu la ko daal di wóoree ni nag 2020 moo ne ko fi la koy fekk te dina daal di inauguré leneen ndaxte nag yéen kay bi ànd na daal ma ko lii nga xamante ni moo di stade olympique da nga xamante ni moom la fa séene daal di amal Vox Pop lu di ko indi waaye Zoom Info ñëwaat ci rendez-vous 2020 boobee noonu nga xamante ni moo di stade olympique bu football bi xamante ni moom la fa séene daal di amal yar ko am te lu la leer les nga xamante xamante ni moo di rendez-vous ba rax ci dolli sax di wax ni dee lu tolloog cinquante mille places lay doogoon Dakar Time ñëw di ñu xamal ni ñu dee koy naam ma ko daal bëgg ak dëgmal waaye nag li yéene kaay bi xëy daal di fësal yéen sénégalais yi déglu leen ma ko moo di nag waa ne ko ah financement yi de dina am fu mu sooxee de ndaxte nag lii nga xamante ni moo di chantier yi Macky Sall bëgg ma ne ko du ko mën a daal di eggale université Sine Saloum baa ngi nii bloqué source a ñu am na nga xamante ni conseil en image bu Macky war na ko daal di amal ndaxte gis nañ ca ay biiñ gis sa yeneen i xeet yu nga xamante ni na ne ko nag njiitu réew mi wane na ko ci ay naataal yu nga xamante yenn saay mu jël bët ya yenn saay mu jël baaraam ba ca gémmañ ga wala boog ma ne ko ca yëral yéen a ba am ca loola leer turbin yéene ñëw di ñu xamal ni ñu daal inauguration boobeet bokk na ca ma ne ko lancement wu campagne bu nga xamante ni gis nañ ko ca nee nañu ndar géej nag kenn du ñoom te yéene kaay bi ñëwaat ca loole naam waaye addu ci parti démocratique sénégalais bi nga xamante nii nag de addu na ñu ma ne ko ci mbirum Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xamante ni génne na waxin biir nekk ya nga xamante ni digganteem ma Karim la woon nee nañu ma ne ko loolee mu daal di génn nag ñoom nga xamante ni ñoo di parti démocratique sénégalais di ay ñoñom nee nañ ko ak ci piri ndaxte nag ma ne ko ñoom sax de jàpp nañ ni du nit koo xamante ni waru maa ngi ci moom libération yéene kaay dañu xamal ni ñu nag bataaxal ba nga xamante ni moom la njiitu réew mi fi woon ma ne ko di maître Abdoulaye Wade bind ki nga xamante ni moo fi ne di njiitu réew mi di Macky Sall ngir nag ma ne ko retrouvailles famille libérale bi wax na ko ca daal di ko cay soññ soññ na ca Idrissa Seck ak Pape Diop yëral yéene kaay bi am ca lu la leer loo ca mënti dégg luy tontu ba 24 heures xamal ni ñu daal ñi nga xamante ni nag de ñoo bokk ci cirque préélectoral bi ma ne ko yéene kaay bi xëy na fësal seen kanam seen xar kanam ni ko dang fàng ci xëtam mu njëkk le quotidien yéene kaay ni politique la ñuy xaar société civile bi de ma ne ko ñoom ñoo daal di junj loolee de waaye nag ñii nga xamante ni ñoom la ñu daal di gisul ci langue politique gi di Aïssata Tall Sall waaye tamit kii di Moussa Sibati Aïda Mbodj yër ko moom yéene bi di le quotidien am ca lu la leer laas yéene kaay ni ñu nag ca Podor la daal di xewee avion bu daal di daanu roppalaan googee noonu nag tax ma ne ko ab ma ne ko pilote français daal di cay ñàkk bakkanam yéene kaay bi di moom moo xëy di koy fësal ni ki ni ki démb la daal di am enquête yéene kaay di ñu na ñu nga xamante ni li leen di yoot buñ ko bawul seen mën na ci daal di far du len lu dul nag yenn ci ay garab yu nga xamante ni ci mbedd mi lañ koy jëndee te fañ koy jëndee wóorul yenn kaay bi ni ñu docteur du Mbeng ma ngay xam le ni daal médicament bu nga xamante ni da nga ko yor te xamoo la ca ne ah jàppal ni nag mën ne ko yor poison bu nga xamante ni loraange mën na la ko amal réew mi quotidien ni ñu bari na ci askan wi nga xamante nii ma ne ko kaaraange gu jëm ci wàllu wér gi yaram ma ne ko daana amee wuñ ko de jege na daanaka téeméeri junni yu nga xamante nii lañ ca daal di nemmeeku daal moo di ñoom de intoxication alimentaire ma ne ko bari na ca la nga xamante nii nag moom da ni faral di dal te la waralu ko nag du dul saf-safal yi nga xamante nii nemmeeku nañ ko ci dee record yéen bi ñëw ci Cissé ak ma ne ko son staff ba pare nag ma ne ko di xayma tey natt nag ma ne ko gayndeya la nga xamante ni moom la ñu daal di def stat yéen kaay ñëw ci Baye Oumar Niass moom nag pare na moo ne ko ngir nag fi mu toll nii ma ne ko ñëpp dégg ko suñu lamb yéen kaay ñëw ci Balla ak ki nga xamante ni moo di Modou nee na revanche Don King lay doon caw sa xiir la Gaston def kii nga xamante ni moo di Luc Nicolaï yal na yàlla saafara yu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ngëpp ne ko ñëpp comp as lëf ci yéene kaay yi rek jaa ngeen jëf